ومسكن صل من الفجار وامرنا العالي بما من جاري سن اجي برنا ياتنا waaye rafet nañ njortu ci ne yëpp day faju waaye ndox nag moo ci jiitu waaye ndox nag dajaa jiitu mooy mooy aajo ji tey ji taxaw mu fi mu nekk nii ndox nag mooy aajo ji taxaw temm fi mu nekk nii war nañoo jëme suñu xalaat ci noonu ndox di amee Tuuba ba doy sëkk ndox mu ndox mu doy mu sell loolu suñ suñ yëpp suñu yëtte jëpp ñun ñii dañ ko war a jëmee rek ci ndox na mu gën a gaawe na mu gën a gaawee ñëpp daal dañ ci jëmee suñuy xalaat ñun ñëpp na ci jëmee suñuy xalaat num daal di gën a mën a amee num daal di gën a mën a amee kon nag kon nag. yitte jàngoo ko. yitte jàngoo man nag lay sama yitte dëgg-dëgg. nee moom nag li yitteem dëgg-dëgg. sama bànneex. bànneexam mu gënal ma. mu itam gënal ko moo di ñu indi ndoxum Lac de Guiers ba ci Touba rek. moo di ñu indi ndoxum Lac de Guiers ba ci Touba. dooganteeg jàngu bu bii. dooganteeg jàngu bu rëy bii. nga xam ne fi la ko sëriñ bi bàyyi. nga xam ne fi la ko sëriñ bi bàyyi. yitte jooju nag. nee yitte jooju nag dafa jàmp lool. dafa jàmp lool moo tax bi ma jógee rek. moo tax bi mu jógee. mu daal dal ci kawam. mu njëkkee dal dal ci kawam. waaye bu dul loolu. nee bu dul woon jaamu kay Lac de Guiers rek lay songu. Lac de Guiers rek lay songu. comme yow Touba. kon yoon waa ngi noonu. waaw bisimilah yoon waa ngi noonu. wa maskani salli min al fujjaari wa amul malaali bima injaari